ta vie. Mhm. et t'apporte beaucoup beaucoup de bonheur et de joie gros mhm. gros gros gros poutou poutou. Mhm. ah joyeux anniversaire aussi à Mansour Anne. Mansour euh, Anne voilà petit frère de euh, Ibrahima Anne. ah Mansour ok joyeux anniversaire waaw. voilà di la yàlla gudd fan wér fekke ak tal. amiin alamin bu baax a baax a baax. amiin yaa rabal alamin euh, et tous les natifs de ce de ce jour. oui nous sommes aujourd'hui le huit février jour yi kenn mënu ko reculer ba le premier ba xam. Mm-hmm. Hmm? nuyul Moussa Lamine. Moussa Lamine maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom fu mu nekkoon dañ koo gëjoon a gis fan yi ah Moussa yow daal bu zone de turbulence amee kenn du la gis bu turbulence bi passé nga ñëw luube. est-ce que bokkul woon ah. ci ñi ci ñi d'accordul ci Amadou Ba au sein de l'APR. mën naa nekk de. Mm-hmm. xam naa bi ñu poussé élection yi xam naa moom daal <laughs> xelam daa dem ci ñu changé candidat waxuma ko nag ñoom ñoo ko wax. <laughs> waaw précision bi de wax dëgg yàlla am na solo de am na solo de alors tey la jeudi. <laughs> 8 février 2000 2024 euh, euh, ñu dem ci yéenikaay yi ñu xëyandoo tey ci suba tàmbali ak enquête quotidien enquête nee na yi dafa nekk à la manœuvre euh, ci dialogue apaisement wu climat climat politique bi mhm. apaisement bi daal précis mënta weesu nga reculer rek reculer rek loolu day wane rek la grandeur d'un homme il n'est jamais trop pour bien faire wax dëgg yàlla reculer rek jàpp date yi le 25 du dëgg beneen bi ci topp ngay libéré ñu nekk ci kasu bi nag ah? waa kay Sall loolu de boo nu ko defaloon dinañ la gërëm sant la wax dëgg yàlla ah, ah yàlla bëri na sutura xam naa ni mbir yi daal doy na waar daal ginnaaw enquête. lu mu ci mënti doon moom du ñun lay laajam ñun askan wi. kan moom. Hmm. waaa ñun bëgguñu ñu pousse élection yi mami ñun ci gàttal dañoo xaw sonn daal dañu lott. nii lottu ngeen. Hmm, lottu nañ de. Hmm. sonn nañ trop. Mm-hmm. ah kon yàlla baax na yàlla bëri na sutura. Mm-hmm. na bu yàlla na la yàlla dégg lottu ngeen. yéen sénégalais lottu ngeen. waaw ah, kon yàlla baax na 24 heures mu ne Macky Sall daal nii na Amadou coow li li muy bari bari daal moom mu ngi téye Amadou daal moom mag Amadou mais daal la mais yaa ngi dégg. ñu ngi avancé di di di circuler nice cool fine nice démb ci conseil des ministre bi daal la confirmation ba am ginnaaw 24 heures gis ngeen les échos mu ñëw ci le front commun des candidats de l'opposition bi nga xam ne danoo décider faire face na bu ñoom nee nañ qu'il pleuve qu'il neige <laughs> quelque que soit situation bi muy taw ba muy naaj ñoom dañuy battre campagne. mais loolooy ful la. ndax ñoom dañuy dem élection le 25 février par force. est-ce que lu tax mu nekk fula lu tax ñoom ñu war a defendre li ñu gëm. Hmm. parce que bu Karim Wade mën a def dugal tànk dugal loxo pour mën a bokk ci élection yi rek ñoom war nañoo am fula guddi toll. pour mën a fexe ñu amal élection yi. ah ñoom daal ne nañ dañuy campagne seen i campagne seen campagne dakkaluñu ko seen candidature conseil constitutionnel moo ko jàllale. Mhm. te jàllale na ko dans les règles de l'art donc ñoom dañuy battre campagne loolu nag mu neex président Macky Sall ak naqari ko ñoo ci bokk yam en attendant daal les événements de Baden-Baden moom président de la République Macky Sall def na pro conseil des ministres ak mm-hmm. Amadou Ba mm-hmm. fu mu nekk nii nee na ñoom ñaar comme mburu ak soow ah, poñse bi poñse bi poñse <laughs> bi poñse bi tey la gën a neex tey la gën a taxaw yaa ngi dégg mm-hmm. indépendant mu ne PDS dafa recadrer les Américains neen moom xam naa ne li leen dese ci réew mi bareetul <laughs> lu neex ngeen di def <laughs> américains yi ngeen di redresser dem leen <laughs> le collectif des candidats déclare Macky Sall illégitime et persona non grata à partir du 2 avril ah PDS nee communiqué bi bi américains yi dafa am ay juumte mm-hmm. nee nañ parce que ñoom ci événement yi daal dañ ko waxee successif dafa am ay juumte ah waaw ñoom moom kay ñoom ñooy recadrer américains yi PDS PDS lu leen dese lan moo leen dese ànd nañu ak parti au pouvoir Benno Bokk ak ya Benno Bokk Yaakaar toxal nañu élection yi kay wax dëgg yàlla nag deseetu leen dara le quotidien mu ne création du FC 25 lii nag mooy club opposition bu bees bi journal ba noonu ne la ko waxee mu ne candidats yi ñoo ko lancé candidats yi war a dem à la présidentielle te ñoom nee nañu reportu nu tey reportu nu suba reportu nu ginnaaw suba dañ dee campagne ba seen ñeex saf yàpp te le 25 février dañuy dem euh, defi li nga xamante ne moom mooy seen élection Walf Quotidien daal di ñëw ci xolal li nga xam ne moom mooy euh, édito bi nga xam ne ñëpp a ko partagé seulement ñii dañ ko bind en page intégrale ñoo yëy ñoom Walf Quotidien ñu ñëw ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa bu Léona Niassène mer na lool nag na bu xalif bi mer na xalif bi nee na pouvoir sa pouvoir Macky Sall jeex na abaana piw c'est fini nenu ko le pouvoir de Macky est fini journal benn ko wax mu ne bëggatunu Macky Sall on ne veut plus de lui qu'il ne compromette pas son avenir bul yàq sa ëllëg mu ne il n'a qu'à partir demal ca ba nga waree dem ndax kenn du ko ñedd mu ne c'est injustice contre Walfadjri dafa war a dakk dafa war a cesser dafa war a jeex tàkk putsch constitutionnel bii nag Walf tam wax na ca mu ne résistance bi nabu boo bëggee dégg dëgg mu ngi en marche peuple bi danoo fas yéene wàcc ci mbedd bi àjjuma incha allah Macky nag am na ay saction inter internationales yoo xamante ne mu ngi koy xaar Union européenne mu ngi réclamer rétablissement du calendrier électoral loolu yëpp journal Walf Quotidien nu ko xamal tey ci suba gi bu ñu buuxee ñu daal di dem ci yéenekaay bi di source a moo ci topp mu ni des manifestants yoo xamante ne yóbbuwaat nañ ñu yóbbu nañ leen kaso. Mhm. Mouhamed Diop mii bu GPS bu Ziguinchor Moustapha Sy bu GPS bu Pikine ainsi que Madior Loum euh, bu mbaaw parmi les manifestants yi nga xamante ne teg nañ leen loxo. ñaari femmes aussi yoo xamante ne ñu ngi doon yëngu ci réseau sociaux yi interpellé nañu leen par la gendarmerie journal Source A dina ko xamal. ñu ngi leen jàpp yóbbu leen ci kaso ba waaye et la campagne continua le journal ba wax ci suuf mooy ne candidat yi dañoo taxaw temm ñu ne ñoom daal du ñu abdiquer seen combat mooy xeex li nga xam ne moo jëm ci reportu élection présidentielle yi beneen bi nag mooy prévision sombre yi nga xam ne expert en intelligence économique bii di Cheikh Mbacké Sène def na ko ci waxtaan bi mu séq ak yéenekaay bii di source à Sud Quotidien yi report de ñaari sages yi boo dëgg jamono jii nabu mooy ñooñu ils sont les maîtres ma gis sax ñenn ci opposition bi ñu ne dañ leen a war a protéger ñoom. en ñooy suñu dernier rempart. waa conseil constitutionnel. kon nag dafa mel ni da ngeen a daw langaamu ci sept sages. pour que ñoom ñooy suñu dernier rempart. ñoom ñoo ci ñoo ci ñoo ci mën a sex wala yàbbi pour euh, mën a annuler décret boobu. jërëjëf. <laughs> le témoin quotidien mu ne conseil des ministres boo doon terminer samay phrase ni dinaa kontaan dëkk kon mën naa comp sa as tuut ca damay am ma di la ko jox conseiller ministre mu ne Macky damay foo Macky renouvelle sa confiance à Amadou Ba mu ne te réitéré na itam volonté wu dialogue national apaisement réconciliation pacification de l' espace public journal bi dinu ko xamal ak ay conviction wu El Hadj Ibrahima Sall à lire ci yéenekaay bi di Le Témoin Vox Populi mu ne colère xol bu tàng et mise en garde des candidats de l' opposition mer nañ de namu nuy danoo mer ba futt buñ doon ay tubaab dañ na rouge de colère mais danoo mera mera mera mera mera mera mera mera mera mera mera mera mera mer mer nanu bay bëgg dee élection yi dinañu ko def le vingt cinq neex naqari beneen bi mooy France nee na ñett te nee na organisation scrutin bi nanu ko def le plus rapidement possible boo xoolee président ma nga ne ca kaw mu ne say première mesure jël na ko démb ci conseil des ministres beneen bi mooy dem naa ca làmb ja tubaarkàlla Mansour yaa aay kay tey. tey <laughs> kay yow nag wax dëgg yàlla nag yaa mën kay. lu yaa ma programme am surnooyu euh, tubaarkàlla yàlla na la yàlla defal jàmm dee ko def nii chaque jour nag. garaawul garaawul ah. garaawul. garaawul ku ko bëgg na ko jënd ci biti amul problème nii nga ko tënk nii baax na. del tënk nii àdduna amul solo <laughs> et puis ñun sax danoo sonn ci wax ci sunu làmb mu ni Sa Thiès na bu fii dem naa ca làmb ja déglul Sa Thiès laa ni le 5 mai Balla le 21 juillet famille bi am nañ am nañ am nañ combat nag famille famille famille ñoom ñu sant Gaye Balla hmm. Balla Gaye Sa Thiès nu mu sant Gaye yow doo dimbali ngir yàlla yow ñii nuñ sant yow Nabou Mansour nii luñ sant gay gay saaxo lañ sant ah saa ca saa ah kon Balla kon Balla gay santul gay yow ñeenti une ñoo fi am tey. yéen man dama gis ne vraiment ngeen bu su ma yegsee ci sunu laam da ngeen def lépp pour mun ma décourager rek en tout cas héritier wu double lees yii. nabu koon bu dee yaay refi nga ñëw bokk. en tout cas héritier wu lees yii am nañ mission commando. kenn ki la cinq la war a bëre keneen ki le 21 juillet Sa Thiès nag moo am le defi du premier choc de VIP bu Sa Thiès daanee mën naa ubbi lamb gi gi tuwaarkaal la ci seen waa kër nag ñoom xamul ñoom seen famille ñëw ñëpp ay mbër lañ Sa Thiès mbër la Balla Gaye kon Balla Gaye tuddul Balla Gaye nan la nan la tudd turam dëggantaan Nabou tëtëtët ah yéen nar yéen kaay ma xool après son ngi xalaat ëllëgëm suba après son premier combat <laughs> et son staff en réflexion sérieuse pour prendre une de son avenir Boy Niang kaay ma wax la gis nga situation bi nga toll nii man foofu laa toll man fu nekk nii man ak sama staff. <laughs> ñu ngi réfléchir nii à mon avenir très sérieux wala ba xam sama ëllëg daal ci réew mi lan lay ba booy ñaaw wéetoo ci de loolu yaakaar na yow rek yaa ci wéet tamit nii laa koy xalaatee nii. Gilbert Sène nee na Sa Thiès sant. <laughs> Sa Thiès nu mu sant Thiès yow ñoom Thiès lañ sant eh, xanaa kon Sa Thiès bu santee seen bu santee bu santee bu santee Thiès kon nabu puut la sant. <laughs> Nabou boo tuddoon noonu sa tur dina bizarre nag Nabou Pout. <laughs> waa Nabou doo tudd mu ne Nabou Pout. <laughs> auzu billaahi mina sheytaani ay man affaire bi borom na li ngay def ñu wàccee plateau ne kat bu santee Thiès saa Thiès yow yow yow ñoom nga faral famille boobu nga faral ñoom nga faral nag stade ñëw ci les meilleurs. ñoo seetaan lamb Thiès ak nag soriwul <laughs> CAN 2023 Edouard Crépin Pape Gueye Lamine Camara ils sont les meilleurs record ñu daal di tëj euh, Pape mu ne un choix de carrière hasardeux c'est une question que se pose le journal ce matin ah, mu ne OM refus de prolonger na bu bàyyi ma yeggale ngi waa kon bàyyi ma wàcc ci ñibbi am problème damaa xam ne Thiès ak Pout soriwul rek am na ay tour yu bizarre yoo xamante ne non. c'est vrai que ñun Sénégal quand ay ay tur yu bizarre la ñuy tuddee ay ay puut ay route de buun xam nga ay ay. yemal ci puut gi bu ma santal li neneen you know xuru yooyu ay. mais loolu koñ la ah yow Pikine nga dëkk. nu mu tudd xuru man na vraiment yow da nga bëri caaxaan yooyu dañ leen waroon utalewaat ay tur ngeen teewaat leen utal leen yeneen tur heureusement ay turu kii la mais moom bu nekkoon ay sant loolu da nga waat tamit subaa dinaa la wax waa ji ma bëggoon a takk ma bañ sant bi a tax ma bañ na koor te waa ji pourtant nag pare woon na de pare woon na pour épouser ma de waaye bu ma xalaatee ne yow na bu koor war ngaa mën a xëy rek di ma tuddee ma madame noonu. ma ne wax dëgg yàlla yenn ni àdduna looy def ci xalaat àdduna rek de koy xalaat parce que tur bi dalay topp ba say doom. descendance bi nit ku bon nga. alal ah, nga. nga dëkk fan dëkk ko defal jàmm jërëjëf merci pour la pour la revue yàlla na yàlla sàmm ñu ngi nuyu euh, Mame Penda Dieye bu baax a baax a baax alors merci jërëjëf ajaratu merci mami non seulement